jërë ngeen jëf ami téléspectateur people 221 ñu suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen seen leader bi di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm di ñaanal suñu kilifa di nekk suñu kilifa day di ñaanaat jàmm ci réew mi di ñaanaat jàmm ci réew mi di ñaanaat ci réew mi nag ñu ngi fi ak ki nga xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi waaye kenn dootu ko présenté ci suñu chaîne bi mu di waag waag di suma xarit nekk ku disponible koo xam ne heure moo ko woowee vraiment day disponible pour man parce que danaan man lépp loo xam ne ni luy jeunesse su ndaw ñi lépp loo xam ne njëriñu Sénégal rawatina Medina soo ma ci woowee rek maa la ciy jiitu frère dama lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. maa ngi lay fay d' abord di wax salaamaaleykum salaamaaleykum comme d' habitude rek je m' appelle Mouhamadou Fall alias Dimi Problème tu vois di bëggee toutes les citoyens sénégalais di masawu coono temps bi yëpp quoi yàqoo ku yàqule ñëpp quoi di bëggee surtout sénégalais yi quoi. respect man. am na solo ah noonu. fi may njëkkee bala maa ñëw ci manifestation yeeg li fa xewoon euh, fan yee passé ñu doon woo benn leader mu di Ousmane Sonko war a dem wuy ji ci benn procès digganteem ak Mame Mbaye Niang euh, tey demam boobu noonu naka nga ko jàngatee ci koo xam ne dañ ko war a woo pour mu dem rek wuy ji noonu simplement mu indi ay coow lu bari bala maa ñëw ci coow yeeg détail naka nga jàngatee dem boobu. waaw mais moom moom dan ko woo yoon moo ko woo. waaw mais ka mënul jóg ndànk dem. moom la laaj. Ah? moom laa mais man loolu loolu loolu dama koy delloo ñoom dama koy delloo Ousmane Sonko laa koy delloo quoi. Sénégal nag sunu Sénégal la quoi man bu ma wóoree man su ma defee lii réew mi tàkk wala am problème man du ko def quoi si kaw si kaw si kaw Sénégalais bu bëgg Sénégalais quoi. ba mënoon na dem ndànk quoi da ko woo da nga koy convoqué mais comme ñu ni convoqué ñeneen ñi ba prison gars dañ fay jaar jaaraat fa tamit tu vois affaire tamit yombul quoi. parce que politique politique la politique ak kaso ñu politique ak police ñu ànd politique ak laakarmase ñu ànd politique ak xeex ñoon ànd parce que ñoom loolu na ni géem pour man sama xaat man moom mënoon a jóg donc dem wuy ji gars yi escorté kon donc mu dem ànd ak public bi mais pas li ma gis li ma gis loolu quoi. li nga gis comme. maanaam dox di fobeere ay magasin jàmbur dox di dajji ay alalu jàmbur waaw am na yoo am na yoo xam ne xaw koy def danuy yàq sax deru Sonko. deram nanu yàq man pour man pour man soo ko man su ma ko bëggee man man du ma du ma def lu ñaaw ko ndax su ma defee lu ñaaw danaan ëpp. amee élément Sonko yi. te gis nga réew mi fi mu toll. gars yi li ñu yàqamti mooy wax ak kaa. ak tam nit dëmm. ak ba ñoom élecon ñu waxoon nit ki li ngay dund mais dund dañuy jël coppati leneen di wax lu leen neex quoi. nit ñi ñoo war a teey si à travers l' internet tout est montage. dëgg la mais tey dem boobu noonu est ce que tey woo Ousmane Sonko jaroon na xëy wàcce plus de ay force de l'ordre yu bari euh, ci dëkk bi ba boo rombee sax da ngay tiit est-ce que woote rek jaroon na loolu. non parce que force de l'arme tu maa ngi bëggee tamit surtout force de l'arme waa ah, parce que ah, sunu ay mbokk la ñu. dëgg la xam nga lii coono la quoi. Mhm. ñun ñuy xeex suñu biir lan la quoi. 2024 ba des na de mais affaire bi carte la wala xeex la quoi est-ce que Sonko su foloo moom dina def li Sénégal bëgg. moom keroog woo nañ ko mu war a dem mu dem gaa naa nga fi nga jaar ñaan am lay jaar armée bi wàcc boobu xam nga pour lan la pour sécurité réew mi pour ñun la. au séance tey xool sonkoo di marché amul sécurité sa magasin wax ma sa magasin ko soto bu gaar sax nu yàq ko. mais loolu lan la quoi parce que ñenn gi dañ siy profité pour yàqal nit. Mm-hmm. ñenn gi dañ siy profité pour yàqal nit ki. Mm-hmm. parce que gis naa yu bëri yoo xam ne xoole xew na si diggante bi. mais yenn yi mais yenn yi la. mais du xeex quoi. Sonko woo na nga dafa wuy ji état bu dara amee dafa jël responsable wàcc si terrain bi sécurité réew mi point. d' mais ñu gis ne bi muy wuyu ji am na ay coow yu jotoon am ba finalement Sonko dañ ko mujjee jàpp ñenn ñu dañ koo jaay doole xëcc ko dugal ko ci oto bi ba dóor ko dara noonu est ce que loolu noonu tamit mënut a indi tension ci dëkk bi. xam nga man dégg naa ay version yu bëri quoi. mais man gëw ma gëw ma ay montage internet mais ñii nee nañu Sonko nga te bineegar nañ ko dóor ñii nee nu parfum la boo xam ne liquide la boo xam ne ni pour entre maanaam te contre ay lacrymogène yooyu nga xam ne xool xet du la ñii nee nañu lii la ñii nee nañu tekkere mais man fekkaw ma loolu lu ma si wax damay fen waxu far nag am na ak waxu xool ku nu jox ay milliards ngay wax lu la neex am na mais fekk da nga bëgg sénégalais bëgg dëgg dëgg te yàlla moo tax waxal loo xam te ni te dans le milieu waxal ak le peuple sénégalais waxal ak population waxal ak sénégalais yi ndax man sénégalais ñoo may fay mais du état bi baadool yi laay jowl mais du pouvoir ni opposant ni pouvoir opposant yi nga gis mooy sont des politiciens ñëpp seen intérêt na ni joobal Baye Fall mais nit ñi dee si affaire yi problème yi est-ce que jar na ko waa mais gaañ bi oto bi dëgg dinaa ñëw ci loolu. ah dinaa ñëw ci mais tey dama bëgg ñëw dama bëgg a ñëw ñu insisté ci côté ci côté ci côté boobu ñu ne dañu jaay doole Sonko jëlee ko ci otoom xëcc ko dugal ko ci oto oto oto GIGN bi senegale yu bari ni loolu noonu jaay doole la. Sonko du état état du reculer da ngay wax xam nga booy xeexal da ngay xeexal ko xam nga ni kii yéen a bokk doole quoi yéen yi xaru la borom fetal du xeexee boroom yat yéen a dëgër boppee jaay sa askan la nanu nekk ay nit quoi amul jaay doole amul état état du reculer te force de l'ordre dana jot ordre ñu koy def li leen wax na ñuy def parce seen job la yow sa job yaa ngi koy def. Ah, mais Ablaye Wade ñaata yoon la nga ko jaga jaga yóbbu ko kaso ah Ablaye Wade ñaata yoon la nga ko jaga jaga yóbbu ko kaso. Baye Fall tamit noonu bàyyi suñu xel quoi. Mm-hmm. ñëpp ay nit la mu ak politique la politique la. booy yi bëgg nañ ko ah man de du ma ko wax lu ñaaw quoi man sama bi lu may wax. population sénégalais bi lay waxal moom mun naa wax moom si kaw mu juum wala mu ne nii ma wax si lii mais li ma war a def mooy mu wax ak ay militant am mu wax ak le peuple sénégalais mais comme ni ko sëñ Sidi Maxtaar ñaane mais comme ni ko beneen sëriñ ñaane fitna baaxu si réew ñun Sénégal lan nekk ñun nekkuñu Europe ñu ngi Sénégal amuñu sax fitu wala droit di nekk fii di wax lu nu neex toppandoon ni ko tëdd sa lal di def lu la neex nga naan sénégalais yi xeex leen sénégalais yi taal réew mi mais kaay ñu taal réew mi da ngay ñëw nga bokk suñuy taal ñu dem taal yi. fitna baaxul ci réew mais doo nekk sax appartement non dafa am ñoo xam ne ni seen app yi la ñu nekk du ñu génn du ñu xeex. Sonko la ñaandal wala ñan la ñaandal. non nii sonkoo nii makk Sall laal lay wax euh, ñu gis ni keroog du Sonko di wuyu ji coow lu bari amoon na ci lacrymogène yi di jug xeex bi di jug ba tey ñu jàpp ne am na trois personnes yoo xam ni Euh, gaañu nañ ci ak li nga xam ne yàq nañ ko ci dëkk bi euh, tey naka nga jàngatee mbir moomu. en tout temps daa xool trois personnes wate dee nañ si dagg nañ si ay magasin jàmbur taal si oto jàmbur taal fi ay biis sàcc alalu jàmbur loolu mooy marche quoi. mais est-ce que nekkul tamit ah. ndaw ñi dañoo gis ni. non xam nga dëkk bi ñu bëgg lañ leen mayul moo tax tamit ñoom ñu réagir. Baye Fall nanu lam liggéey dëkk bi fépp la mettee dañu war a muñ te yàlla moo tax muñ. baay li fi sunu maam yi joob baay ñun ko fi joob. ñu sunu baay luñ fi joob ndax danoo judd fekk fi ay kër. te xamuñu fu papa jënd kër. danoo judd fekk fi ay terrain xamuñu sunu yaay fanal def ba am terrain. yow nga jóge fee naan ay dañuy indi ay niveau inspiré nu fa xaw ma lan topp di fobeere mais pourquoi mënul am beneen stratégie ñu marché teg sound def ay caravane ambiance ni ñi foree. mais est dox def benn. ba pare marché plus euh, plus NTS wu sa ay mbuus mbalit di bale dëkk bi di defar quoi mu rafet. mais pas marché sàcca nday magasin alalu jàmbur dajji fii indi boucan indi problème ah loolu mooy marché. Sonko bu ñu ko wooyee dafa dem wuy ji si jàmm salaam mu ñëw. mais dama ne est-ce que tey woo Sonko jar na ñu xëy wàccee armée buntu këram wàccee fa ay gendarme wàccee fa ay gémi. xam nga pourquoi ñu koy def xam nga pourquoi mu koy jar. da koy jar xam nga pourquoi muy jar loolu. ñaata nit a bu Sonko. Hmm. mais est-ce que ñëpp a yem. Hmm. est-ce que ñëpp a yem. ñii dañuy def ñii defuñu yow état dafa dof wala nit ñi dof. ah yow gis nga li xew li passé li gars yi jot a fobeere li fi jot am mais mais yéen a ngi xool yéen li xew a ah ñu ngi di dey entre Sonko entre Sonko Macky Sall bee passé yaa njëg yaa combien de morts après ngeen ni état def nii quoi seetaan quoi non day def liggéeyam ndax boo naree man bi ma génnee bi sama bi ma génnee bi si couvre-feu bi ba ma def sama live a ah, dama xëy fajar lu jël si ma takk dana kii de day influencé dañ ma jël si takkal may manoot waa dig maa ngi leen di nuyu parce que dama def laa war ma ko def ma après ma tëdd si jëlal ma avocat ma génn sama yoon. d' accord léegi bu ma génnee foofu manifestation bi naka nga ko gisee xam nga xeex bi jàkkaarloog force de l'ordre yi ndaw ñi génn di xeex naka nga jàngatee loolu ci réew moo xam ne Sénégal la ak mag ñi baax ñu fi tëdd. parce que ñun dañuy bëgg roy ñoo xam ne ñu ne ñoom bokk nañu ñun talu na ay guerre civile na nga ko xam bu baax a baax. sunu maayin ay taal réew nekku si sunu xel nekku si loolu ay taal réew ak ay guerre civile doo si génn sa papa du si génn sa yaay du si génn jaru ko baay Fall nan lu waxante dëgg te yàlla moo tax la mooy loolu ñun bu ñu juddoo ba léegi ñu ngi lekk ñu ngi naan sans Macky sans Sonko sans Karim sans Ablaye Wade sans keneen ak keneen yàllaa ngi nuy suturaal ñu ngi nekk bu suñu dee ñu dee ndax xalaqal mawtu wa xayaat li ngay xeex nii doo ko est-ce que ko fekkee allahu yaalam naa ay sama doom laa xeexal tey euh, bi coow loolu amee ñu nemmee ko ci ay ay nervi yoo xamante ni euh, ba sax yaakaar naa am na ko ci dëkk Medina Euh, yàlla sunu borom jël bakkanam ñu bari doon joxoñ baaraamu tuuma naan nervi la mais ñun bi ñu demee ci ay parents am nee nañ ñu du nervi mais ñenn ñu sénégalais yi jàpp ni ay nervi ñoo rax ci mbir mi euh, ba coow lu bari amoon ci Medina ba tey yaakaar naa am na wenn doom Medina bu ñàkk bakkanam. non gis nga gars yi dañuy wax naan Medina maa ngi dégg nag ñuy wax Medina nan Medina Medina di yàq deru Medina parce seen problème lépp ñoom mirina la. keroog affaire bi mu amee am benn boy bu dëkk fii boo xam ne bokk na si affaire bi fii Medina bokk. wete Medina danoo génn taxaw seetaan som booy ñoo génn taxaw seetaan mais de wete fu doon gis noonu ñu ma xam ñu si man ma si xamul gis noonu ñooñu di waa Medina. nee na rey nañ beneen nit fi si mairie Bamba Fall bi man fekkew ma man daal gis naa nu publier ndax génn moon dama lay wax li fi am. ay rey nu nir fii ay rey nañ ko loolu lépp ñoom la parce que kooku lu tax ñu rey ko man xaw ma dama sénateur maa ngi koy jaale nag seen waa kër dégg naa ni min la dëkk maa ngi koy jaale seen waa kër. événement moo mel noonu événement bu amee kenn rëccul yéen mi sa waaw yéen mi sa caméra sax mën nga dee foofu ndax xam nga affaire fu mu jógee te mouvement yaa tout am na rax am na leneen. mouvement moom boo dem ba ni mouvement ba ni marche rek yow bul am looy wax boo tegee sa programme sa concert sax boo ko tegee ñaana yàlla mu jeex si jàmm waxuma la ak ay mouvement ay marche ay mbedd ay xeex jàkkaarloo ko force d'alarme bi ñu kéré ay nervi nee nañu ñii nee nañu ay mbër lañu mais fii lu fay def rek day feeñ voilà. d'accord léegi ñu gis ni say naataango ku ci mel ni euh, euh, Dof Ndeye Zarko Ada Fass ah Siteu ñu gis ni ñoom ñëpp génn nañ lancer benn message ci ndaw ñi. Ah, ñu bëri jàpp ne 10 000 problème gars yi dañ ko ger moo tax léegi génnatul waxatul te lii nii bu daan am yow bokk nga ñi nga xam ne yaa daan njëkk génn di ko kaas yaa ngi kay wax léegi ci couvre-feu bi mais ñu gis ni léegi da mel ni ko xaw a neutre. man li ma doon wax ba léegi maa ngi koy wax waaye xam nga lu gars yi bëgg ah problème de saaga ne président jàpp nañ ko mu ngi kaso ba ñu kontaan quoi ñoom loolu ñun ragal ñun ragal nekku sax su ñun mais da ngay xool lu logique man du ma toppandoo man kenn du ma sàkkatoo muk du ma toppandoo man damay doylu yé ba ñoom nag pour ñu bëgg dix mille pour il ñu yëg ni dix mille waaye da jàpp nañ ko bàyyi mu ngi rëbës nga xëy suba dégg tës dégg waxkat yi site internet yi capturé publié weer doomu jàmbur ma nga kaso. mais dix mille iso joxuñu la moo tax nga noppi. kontaan. iso gars moo tax nga noppi léegi. na nit génn ni jox na ma munin ñoom lu la jox def ko vidéo ñoom lu la jox mu am image yaa internet bi ba lépp loo fi lekk si xaas nuyoo yow fexe ba ma ni diw jox na moom yow bu la joxee sax da war a jël mais li fi nekk nga wax ko waxal nañu dëgg quoi gis nga ñoo ñu génn di wax ak jeunesse bi il faut ñu wax ak jeunesse bi. li ngeen bëgg léegi ay ñun jeunesse bi génn leen ngeen taar réew mi génn leen yàq alu jàmbur quoi loolu la gars bëgg. yàlla xam ne mbay ku si am sa magasin wala nga am métier mais tal nga leneen lu xëy du xool loo fobeere nan waxante dëgg te yàlla moo tax quoi. Mm-hmm. nan dem joobi Baye Fall nan dem waari. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. d'accord tey euh, ñu gis démb Ousmane Sonko mu nekk hôpital biñ ko gisee mu nekk ci anam boo xam ne sénégalais yu bëri am nañ ci moom yërmande tey ñenn ñi di wax ne lii ñu ko def euh, ëllëg bu xawee laal ci wàllu état de santem euh, jàppoo ni loolu noonu mu indi mën na indi jéey ci réew mi. yàlla xam na ni mën naa waat kenn defu ko dara. te jàmm lay am. kon da jàpp ne ay stratégie la non gis nga stratégie dafa garaaw euh, te xeex dafa am ñoo xam ni ñuy xeexee moo salte mën na la mën yow yow Baye Fall yéen xam ngeen Sénégal xam ngeen état mais xam ngeen montage yi Sonko defuñu ko dara te Sonko jàmm lay am yëpp ay détails la ay pikiir nañ ko ak sotti nañ ko lii ma leen dégg naa ko parce que dama sonn si yenn moo duulkat yi du leen déglu sax. man dama lay xool ngay duul ma zappé ndayam. Mhm. du ma déglu sax ñenn ñi waxal loolu neex nag ndax nekkal sa gàlle ah di jaay la ay gis nga internet bi nga tax cage yee sëpp doole ak nankatu xam nga pili la xam nga nankatu loolu noonu surtout gel yi di ko dund nan xool société bi nit lu ñu dund ñu xool nan la ñuy def ko mais pas wër di xeex rek. lii du solution. mais mais mais mais tey mais tey. Euh, kii tamit di avocat Ousmane Sonko di maître Clédor gis nga tamit niñ ko def. weta Clédor xam lu ko yóbbu noonu sonn nante la tam mag la dafa sonn rek mu ne xaama daw dem Paris noppal sam bopp quoi non nante la de. billaay xoolal mag la de mais mag la bépp gars yi nañu bàyyi xoolal mag ñi dugal si yenn mouvement yi mag affaire bi nii du combat pas combat jeune la quoi il faut ñu bàyyi pas yi ñuy utiliser mag ñi non. nga dégg maître Clédor mais defoon nañ liggéey na li mu war liggéey lépp may leen ko mu noyyi jàpp jaamu dem quoi. Maître Clédor mag la moom waru sax dem sa ay mouvement ñu koy tegal ay siège pousse pousse. am na yoo xam ne noo taxaw rek am na yoo xam ne adduna jorokam ba amee gis nañ fi avocat bu taxaw pare di àtte ba dee si kanamu juge yi wow kongu dee nanu ragal yàlla quoi nekk ay nit quoi. Mm. ma ñooñu lu nu am na ñooñu ko lu nu amuloon si adduna dos nu ko amaat. xam lu leen war dem toog jaamu yàlla man nekk damay wax kii pour fara kii damay wax kii damay wax ak Macky Sall damay wax ak damay wax kii damay wax ak Kële. mag la dara jotu ko daa jékki saa rek xam naa mu ne nante la wax <laughs> dëgg si yow ñu laal ko yow. mais boo xoolee ci image yi. gis nañ boo xoolee mais image yi bay lu fa nekkoon mais ci biir oto bi la. mais gis nañ na bay pompe boppam muy xaru wala Sonko dañuy dof la. oto vitrine vert. léew bi si oto bi la xew yow say élément nga nekkal kenn raxu la mais xëy na force de l'ordre nee na la jaar ni jaar nañu appliqué toj oto bi après ñoom ñooy tourné seen biir ñoo gisande seen biir ñoo koy fay ñu waxtaan seen biir parce que droit dafa am Sonko xam na fu muy jaar pour enquête wala alalam. tamit jarul ñuy rey suñu bopp quoi ay tànnal sama oto rek mais ne su oto gën nañu quoi mais am na benn gars mu gis ñu daje magasin mi ngi wër di wax si télé rek. Carrefour mi ngi wax rek naan sama magasin mais wax na li muy wax jeex na quoi. mais dañu bëgg jël dara di ko politique di ko campagne pour jaar fa tekki ay quatre téléphones cinq téléphones six téléphones nga ne wéy ko daj yi bëgg am buzz Sénégal am fi buzz moo yomb <laughs> mu ngi wax rek maa ngi ko dégg na quoi vraiment li ko dal métti na neexul kenn mais arrête ça quoi boo ko sa fula da ngay pulo quoi daw si leneen quoi mm-hmm. mais Cheikh su nga génn benn vidéo mais comme la kaada wa sama copain waaye mais xoolal te ñun fi jàpp temps yi. parce fi jàpp ak ñoom kërim waaw waaw ñoom ni doof. waaw yéenewu leen loolu mais gis nga yoon dafa am quoi. am na loo xam ne wax état. Mhm. ñun bu nu amoon loolu noonu wala ñu taxaw foofu noonu. mën nañu jànkaarloo ñoom quoi mais yéen i xaru la. ñu waxante dëgg te yàlla moo tax man doo toog fee naan ma dama ne saagaal saagaal. bu subaa ñu foobee dem jàpp nañu Abdou Karim. jàpp nañu ko ah, a yàgg ah. te ñu la may xool liberté xool provisoire ngay duggaat si beneen game boo xam te ne après tamit mais fekk ñoom xool kasoo la neex wala pour am place nekk député ministre ama yàlla na leen yàlla may ñoom ay postu incha allah rabi. d' accord léegi ma ñëw ci li nga xamante ne xam naa fa laa jeexalee muy troisième mandat bi. Euh, euh, ñu bëri jàpp ni Macky Sall day posé waat euh, tey jàppoo ni troisième mandat boobu noonu buñ ko déclaré wala tey ji ñu retiré candidat yi Ousmane Sonko mën na indi jéey ci réew mi. yàlla xam na ne man xam naa ni xoolal candidatu candidature Sonko day jàll vingt 2024 yàggatul quoi nanu bàyyi expliqué nit ñi ñuy dugal ci Sénégal yi quoi ñun bu doon ñu war nekk di xeex loo xam te ne ñëwagul 2024 des na dëpp boobu ba léegi xool ñu ngi guerre mais ana solution yi ay dee. ana solution yi daj magasin jàmm mais mais nee ma ñoom xool ban solution nañ fi teg quoi lii quoi. affaire bi carte la booy sama carte laa mën sama carte ma carte ma kart ma arme ma gon am laay loolu laay xaar élection ñëw ma teg sama carte woote voilà. d'accord euh, kontaan na ci dalal la fii sama kër tey ban message ngay lancé ndaw ñi ci le 30 bi nga xam ne fa lañ jëm. ah ba 2024 parce que fi mu toll nii kenn tëddatul nelaw aussi. instant moom ñu ngi jëm si weeru koor maanaam saw Ramadan. Mhm. man moom weeru koor gi moom ah waaw tal naa leneen loolu sax ay nii quoi weeru koor gi moom amul concert amul mouvement programme amul ay pëjum amul ay affaire u seytaane amul ay caravane ak amul ay match weeru koor gi bàyyi ma def ko lu naan wama emiru illa li yabudullah jox ko yàlla maa ngi pare benn série boo xam ne maa ngi koy pare si weeru koor gi quoi mais xam naa dina commencé daw quoi premier jour lay commencé waa ba 30 jours quoi wetam wetam man ak benn télé bu tudd euh, euh, tele Sénégal. Mhm. xam naa war ngeen ko xam quoi. waaw oui maa ngi bëggee gars yi baax ñoom Racine mi nekk si affaire tam di ko bëggee. di ko bëggee di bëggee di bëggee gars yi nekk si affaire bi yëpp di bëggee ñi si ñi si jàpp ñëpp maa ngi leen di bëggee tu di bëggoo Thieloo sama copain di ko bëggee me série bi ça parle Sénégal nu muy doxee. wa série bi bokkul ak série xool théâtre kat yi ngeen gis de wa série boo xam li fi nekk laay wax gel yi ni ñuy consommé volet ni ñuy dundee ak société bi ni muy doxee ni ngi ni ñuy dundee ak bon mbay mi waaw loolu lay gée wal nañ ko. di bëggee yëpp di bëggee sama gars yi ah people 221 di leen waxoolal ràññi rangit et puis la jeunesse bàyyi leen seen xel bàyyi faal je de la jeunesse anduma kenn kenn jox mu si dërëm. mu ngi ñu naan dix mille fan la far man peuple bi laa far bu dee jotee nag ñun ñu dee du ñu wax sax na gars yi bàyyi seen xel si Sénégalais na Sénégalais yi bàyyi seen xel bàyyi faal na nu bàyyi seen xel ñu ngi di dee comme yomb na trop dee dee dee nay weñ ah ba pare lu fay des gàdd ko lii du jihaad de billaah lii du jihaad boo ñu jihaad jeex na si jamonoy Muhammad alayhi salaatu wa salaam yaa salaamun alaa nuuhin fil aalamiin ràññit